gan gi Abdou Sané environnementaliste euh, nekk itam coordonnateur euh, Pastef Ziguinchor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM euh, tey waxtaanee nag ndorteel gi taw yu bari wàcc ci ndakaaru ak ci réew mi lan moo waral sëñ bi Sané booba tey ñuy tëral ay plan waaye daal saa yu nawet ñëwee rawatina bi ndox mi bari lool bay def ay jéeya. voilà defe naa affaire mbënd mi. nit ñi dañ ci wax wax wax wax ba sonn ñëpp xam nañu lan moo ko war te ñëpp xam nañu ni am na loo xam ne buñ ko defoon du am léegi foofu la problème bi nekk loolu moo indi bi Macky Sall di falu mu amoon conseil présidentiel ba ñëpp daje présidence mm. élaborer lu ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations mais pour mun ko respecter foofu moo nekkoon problème te maa leen di fàttali période boobu amoon na benn ministre boo xam ne mooy yoroon affaire inondation mi ngi tudd Fatou Tabidou moom ci boppam moo ñëw taxaw assemblée nationale jaakaarloo ak député yi nee leen xaalis boo xam ne moom la ñu waroon jël pour xeex bënn mi maa ngi leen di yéegal yéen député yi ni xaalis boobu dugul fu mu waroon dugg feneen la war a dugg hmm. la ñu def dax ko point muy journaliste mu yeneen député yëpp kenn manifesté wul solidarité pour jéem a xam lan la wax jooju umb à l'époque donc loolu ma ñu topp tey. d'accord waaye plan décennal bi ñu tëral nag jàpp nga ni kon amul benn njariñ. noon wax ma amul benn njëriñ c'est-à-dire que boo ko defee ba pare. ñu naan la 700 milliards la def. Mm. Mm. ministre bi nga xam ne moo ko yor ñëw taxaw nekkul opposant de ministre de la république mu ñëw biir assemblée nationale nga xam ne institution la jàkkarloo ak député yi am courage ne leen xaalis boo xam ne moom la ñu mobiliser pour lutter contre les inondations feneen la ñu dugal feneen la ko dugal fuddul fu ñu ko waroon dugal. xanaa mm. wax jooju leer na. waaw plan Orsec bi ñuy déclenché waaw am mm. tey toll fu inondation di continuer di continuer nañu seetaat nañu dégluwaat. Euh, yi ñuy euh, déclenché saa yu euh, jafe-jafe taxawee itam gisoo ni am na njariñ tuuti gannaaw ñu ngi wax ne bari na ay sites yoo xam ne génnee na leen ci ndox mi. dafa nekk loo xam ne dañ ko créer xam nga bala ngay wax plan ORSEC hmm. am na ay plan yu bëri am na lu ñuy wax plan d'organisation interne am na lu ñuy wax plan particulier d'intervention am na lu ñuy wax plan de contingence plan yooyu yëpp il faut que ñu échouer bala ngay ñëw fu ñuy wax léegi plan ORSEC hmm. ORSEC mooy organisation des secours hmm. mooy lan jéem ñu def lépp lu ñu waroon def malheureusement problème bi am na léegi il faut sauver hmm. donc voilà donc plan Orsec ñu ngi koy def mais plan Orsec foo gis plan Orsec bi bëri bëri bëri c'est-à-dire que xalaat bi xóotul liggéey bi rafetul parce que bu ñu doon def liggéey bu rafet xalaat yu du ñu toll fu ñu amee ay organisation de secours donc plan Orsec dafa nekk loo xam ne dafa exprimer un échec de la prévention des risques. lan mooy solution tey. solution bi c'est simple. dafa am loo xam ne Sénégal loolu moo leen dab dañu ñàkkoon une vision en matière d' aménagement du territoire et en matière de planification urbaine loolu moo ñu dab tey on n'a pas eu une politique d'urbanisation am ñoon une politique d' de l' espace moo ñu dab tey léegi tey xëy xanaa boo demee ba nga xam li tax problème bi di persister war nga mun a taxaw nga seetal léegi nooy jéem a def mais yow au lieu nga def ko nga renvoyé yëpp di naan ndigal yàlla ndogal yàlla la ndogal yàlla mooy lu tubaab di wax la fatalité boole ci ñun fi ay réponse conjoncturelle la ñuy def alors que affaire bi dafa laaj ay réponse structurelle réponse conjoncturelle booy lan léegi léegi nii dégg nga ni Kaolack am na ku dee nga daw ak sa gars yi dem jëneen ndox léegi léegi nga dégg ni géejuwaay nga bay fii dem ba fële non non da ngay seet loo xam ne boo ko defee tey ëllëg dootul am mooy réponse structurelle malheureusement ñun am ñu loolu. Hmm. boole ci am na loo xam ne foofu ñu préciser ko. ci plan ORSEC am na enjeu financier parce que bu fekkee yow yaay piloté plan ORSEC. Mhm. doo lancé appel d'offre. Mhm. lépp ci urgence la parce ci urgence ngay nekk da ngay mhm. waxale nu mu la neexee. donc loolu tam dans un pays boo xam ne corruption rek moo fi nekk. mais ki ñi di piloté plan ORSEC alal lañ ci am. hydrocureur yooyu ngay gis noonu. journaliste nga man ngi lay invité nga mën mener des enquêtes di nga gis ni ñi nga xam ne ñooñu waroon jàppale pour inondation bañ a am ñoom ñoo jaar ci suuf dem jëndi ay hydrocureur parce que xam nañu lu ñu liggéey baaxul et que hydrocureur koy soxla ñuy gagné encore ay marché donc nous sommes doublement victimes on victime de l'absence de volonté politique ba pare gars yi di dund ci suñu misère di gëm seen hydrocureur toog xaar su problème amee rek nga dem lu seen hydrocureur te ci plan Orsec comme ni ma ko waxee amul appel d'offre lu mu la wax ci marché moom ngay nangu mu ko waxtu wi daf ñoo njatt lool ñu baral jéego yi alors euh, ñu wax ci wàllu politique euh, surtout yi Askan Wi ak wàllu def intercoalition ŋàññi nañ leen bu baax a baax ci euh, fan yi ñu génn ndax ne dañoo bëgg a def ay groupe parlementaire yu bari am ñu jàpp ne yokk xëy na koppar yéen yuy jëfandikoo dong moo ko waral loo cay tontu ak lu waral ngeen bëgg a def groupe parlementaire yu bari. voilà lu ñuy wax élection am na fu muy commencer am na fu muy jeexee élection nekkul suñu ne Ziguinchor am ngeen député Bignona am ngeen député jeex na élection législative ni ngi continuer ba jour bu ñuy paree mettre en place les organes de l'Assemblée nationale ci la ñu toll pour le moment léegi suñu paree ci loolu yëpp ñu mun a évaluer le coût pour seet lan la ñu coûter pour le moment li leer ba leer mooy tey intercoalition Yewwi Wallu suñu defoon ay groupe parlementaire yu bari ñoom ñooy nekk majoritaire ci bureau bi ñoom ñooy nekk majoritaire ci lu ñuy wax conférence des présidents assemblée nationale nu muy doxee mooy lan bureau moo ko yore ak conférence des présidents ñaar élément yooyu amul kenn ku mun a xalaat nekk minoritaire ci loolu donc tey du point de vue rapport politique je crois que intérêt intercoalition Yewwi Askan Wi mooy ñu def groupe parlementaire yu bëri pourquoi parce que balaa ñuy wax ay euh, groupe parlementaire ci rapport de force actuellement Benno mi ngi am pratiquement cinquante pour cent membres bureau ñu lay am cinquante pour cent donc bu fekkente ne am dolli nga ci quatre groupes parlementaires par exemple wala cinq te mu wóor la ni bépp président groupe parlementaire et membre d'office du bureau et membre d'office de la conférence de président c'est-à-dire que donc yow yaay nekk majorité aussi bien au bureau que au niveau donc de la conférence de président te loolu lu rëy la bëggoon naa tey nga laajte n'importe quel président assemblée nationale wala n'importe quel député boo xam ne am na xam-xam ci affaire yi. Mhm. nga laaj ko est-ce que dina am ku mun a xalaat etre minorité dans un bureau et être minorité ci conférence de président. Mhm. dinañ la ne mukk parce que c'est des organes délibérants te yooyu ñoo yore lépp amul loo mun a def assemblée nationale. kon jaarlu ci bureau wala jaarlu ci conférence de président. kon mën nañoo jàpp ne Yewwi su euh, doxalee noonu nga waxee nii cohabitation bi ñu doon wax dafay mujjee nekk. day ëpp sax cohabitation parce que lan la dossier bu duggee assemblée bureau boo koy accueillir. Hmm. bureau bu ci pare conférence de président la. Hmm. léegi bu fekkee yow yaa yore majorité bi hmm. lu ñuy wax par loolu yëpp ana lan moo lay tere. imposer ce point de vue au niveau de l'Assemblée nationale moo tax ma ne la enjeu bi dafa rëy trop te ñu gisuñu ko teeluñu ko gis xalaatuñu ko nii lu ñu doon xalaat mooy boo nekkee président du groupe parlementaire yaa ngi am rang de membre du bureau. Mm. yaa ngi fayeeku deux millions. boo nekkee président de commission yaa ngi fayeeku un million six cent mille boo nekkee député simple un million trois cent mille et cetera. Mm. boobu c'est une vision superficielle. assemblée nationale dafa nekk foo xam ne foofu la ñuy discuter de politique. donc bu ñu fay discuter politique approche politique moo war a jiitu d'abord léegi approche politique boobu dañ koy encadrer après. mais fu mu ne nii encore une fois je crois que pour ñi nga xam ne dañu ne cas bu bu diviser c'est pas bon. Mm. fii moom exception la. fii moom su gars yi divisé wu nu ñu gën a bëree groupe parlementaire mu gën a baax pour l'intercoalition Yewwi Wallu. mais nangu nga ni quand euh, dina yokk dépense yi ci assemblée nationale forum civil looloo leen tiital ëlëm leen ñeneen itam euh, loola jaaxal na leen ci. léegi yàq naa daa am nu ngeen nar a doxalee xëy na ba euh, ndax neenu si seen programme loolu ngeen waxoon da ngeen di rationaliser. te dara changé rationaliser sur le programme moo indi ñun ñu am intérêt aujourd'hui contrôler les organes délibérants de l'Assemblée nationale parce que foofu la ñuy décider yëpp tey lu ñuy wax rationaliser les dépenses booy lan les caisses les caisses noires tey bu fekkente ne yow yaa contrôler le bureau de l'Assemblée nationale. Mm. yow yaa ko contrôler conférence des présidents qu'adviendra-t-il par rapport caisse noire bu ñuy toujours président de façon abusive qu'adviendra-t-il nga xam ne moom la président assemblée nationale ci boppam qu'adviendra-t-il caisse noire boo xam président du haut conseil des collectivités territoriales qu'adviendra-t-il caisse noire boo xam ne premier ministre ak président du conseil économique social et environnemental donc foofu les ressources yi nag des milliards yoo il faut avoir les moyens de contrôler cela donc une réflexion beaucoup plus profonde foofu la war a jubal. Mm. dolli ci du point de lu ñuy wax loi de règlement nga xam ne boobu mooy contrôler pour seet xaalis bu ñu joxoon daaw fan nga ko dugal. Mm. fan la jaar bilan bi nga war a présenté yëpp boo ko contrôler tout ça et cetera foofu la affaire yëpp di nekk donc. règle de transparence règle de bonne gouvernance dafa am ay outils yoo xam ne boo leen yorul doo am possibilité di koy mën a agir di ci mën a agir loolu moo indi tey ñu war a créer des rapports de force yoo xam ne on contrôle l'Assemblée nationale mhm. pour ñu mën a am les moyens d'imposer suñu programme boo xam ne mooy rationalisation des ressources rationalisation des ressources c'est pas simplement le un million qu'on paie aux députés non non c'est ces grosses ci ñoom am possibilité contrôler leen donc boobu mooy moo tax ma ne xeex bi foofu la nekk il faut gagner la bataille au niveau des organes délibérants de l'Assemblée nationale et le reste suivra. d'accord dina leer fii ak juróom-ñaari fan ñu installé assemblée nationale bi xam euh, Yewwi naka la nar taxawee ak euh, lu ko waral ñu wax ci euh, paluk njiital conseil constitutionnel Mamadou Badio kamara ndax da ngeen ci am tiitaange ñeel 2024 surtout ak seen candidat Ousmane Sonko. ñun affaire tiit mënuñu ko xam d'autant que soo yoree mbooloo amoo looy mais yërmande la am parce que Badio bu dee am na ay mbokk du ñuy waxtaan ak moom wala moom mu leen du déglu moom ci boppam warul tollu tey foo xam ne dina nangu yeneen jeux yi bi ko gars yi di yokkal fii âge pour dem retraite ñëpp a ko ñaawlu boolee ci diggante mag Macky Sall pratiquement ñëpp la ñu considéré ni Macky Sall koy utiliser nit aussi day am loo xam ne yaa koy bañal sa bopp alal warul tax ba nga nangu lu nekk lu nekk lu nekk. tey moom amul lu mu mun a jël comme décision ba ñëpp ànd ak moom parce que nit ñi dañu ñàkk wóolu ci intégrité ak ci probité dafa nekk nit koo xam ne mi ngi accroché wu téye ci poste téye ci poste war a dee ci poste man daal am na ay façon nit yoo xam ne xaw ma fu ñu leen yaree mais façon jikko yooyu na ma yàlla muusal donc moom ci boppam moo war a bañal boppam yéen nii ay mbokk mu war a jóg wax ci moom mais moom mënul tax ñun ñu tiit parce que ku yoree mbooloo encore une fois mbooloo mooy décider du Badio mooy décider du Macky Sall mooy décider. mbooloo mi bi décider taxaw nañu tem pour tere Macky Sall mu am troisième candidature tere nañu taxaw nañu tem pour que lépp loo xam ne jublaan la du mën a jàll du mun a dem parce que kenn mënul xeex ak mbooloo. ragaloo leen mu rakkale seen candidat. mais lu moo ragal laa bëggul sax sooy wax ak man nga koy dugal parce que ragal <laughs> xam naa lépp ba mu des lu mu ragal ñun munoo yoree dëgg munoo yoree public bi peuple bi ba pare mu am looy ragal. nit mooy ragal peuple mais peuple war a ragal nit ñun peuple bi la ñu ànd te peuple bi fu mu féetee ñun foofu la ñu féetee mooy lan na dëgg bi imposé wu na loi bi appliqué wu à tout le monde amul Macky Sall ou pas Badio bu fekkente ne dafa xalaat ni post bi dañ ko nommé pour mu def lu ko neex dina jàkkaarloo ak peuple bi te peuple bi moo ko ëpp doole je ñu bari séentu nañu tasaaroo ci biir yi ndax candidature yu bari yi tàmbalee jip euh, ñeel présidentielle bi ñu dëkkmal Malick gàkku moo ci euh, fësal bosam barki Demba wax ne moom euh, daal parti boobu taxawaluñ ko ngir nekk ci ginnaaw kenn ndax yaakaaroon ni xëy na li ñu naan guerre des égos mën na jutuwaat ci biir yi ba xëy na jur tasaaroo. non am na ñoo xam ne. Hmm. seen yéene moom la ñuy jël transformé ko en opinion. le problème bi mooy lan Yewwi Askan Yewwi Askan Wi dafa tollu tey foo xam ne ñëpp xam nañu ni c'est une force incontournable et que c'est une force montante qui va droit au sommet pour contrôler 2024 léegi lépp luñu lu ñu mënul wax ñu ngi jéem a def ay hypothèses pour jaxase xel ni ñi lu waa Yewwi wax lu leer la mosu ñu ne nañu bokk Yewwi ba pare ñun ñëpp ñu am benn candidat dañu ne nañu bokk simplement pour une situation donnée mm. mais bu élection présidentielle ku mu neex nga nekk candidat waaye lu su fekkente ne dem nañu ba deuxième tour le candidat le mieux placé de Yewwi Askan Wi moom la ñuy jàppale point donc ma ma Malick Gakou am na droit nekk candidat comme keneen am na nekk candidat comme keneen am na droit nekk candidat ku mu neex mun nga nekk candidat hmm. donc amul fenn fu ñu ne benn candidat lu ñuy am donc ñi nga xam ne seen yéene mooy yeewi askan wi am problème ñoom ñooy def déformation réflexion bi mais nax nañu seen bopp parce que ni ñi xam nañu lu ñu bëgg bu ñuy jóg di taxawal yeewi askan wi wax ju leer la ñuy wax te ba léegi wax jooju moom la ñëpp di sàmm. jërëjëf Abdou Sané amoon nañu te dalal la ci matinalu mi FM tey fàttali ni environnementaliste nga yow itam yaay coordonnateur euh, PASTEF euh, Ziguinchor jërëjëf. merci.